cette fois-ci c'est par rapport à la nomination parce que Sénat du n'importe quel organe mhm. ñi ngi jëm des quatre mois kese moom moo des mhm. mu indi li nga xamante ne moom change mooy changement te li ci gën a tey xel mooy moment bi Doudou Ndir jëlee décision mhm. trois jours après mu ne joxe injonction ne nañuy jox kii di Ousmane Sonko ay fiche parrainage am waaw même xam nga Doudou Ndir bu jëlee injection moom selon moom si niveau am la waxee

maanaam euh, naka la mos naa ko demandé suñu benn doyen à l'époque Ndiaw bi nekkoon fac droit mu ne ma euh, ñun si on me dit ne élève bi bu amee moyenne dix doit passer en classe supérieure bu ñëwee am moyenne dix je vais le faire passer en classe supérieure du xool nag ndax dafa triché rek wala fi parce que xaw lu nekkoon ci ginnaaw man moyenne dix bu ñu ma présenté au Sénégal ce qui se quoi mooy les hommes du ñu régler le problème fu ñu ko war a régler des fois sur les lois ou la la la Sénat sur des fois sur rek ci li nga xamante ne moom la leen yoon ñoom chaque fois ñoom dañu mën nañuy interpréter en réalité li may naan le droit le droit on n'invente pas tout est écrit boo seetloo bu ñu lay bu la juge di a dit tout est tout est clair malheureusement nag euh, en matière politique au Sénégal ces derniers temps chaque fois moom di nga gis kenn ku ne interpréter à ta manière nu la arrangé loolu moo compliqué la chose